كفي التالي بشيخ لا يبقلك وي والله وي شيخ كجر ليرنا شيخ أم الماس والله كفي التالي بشيخ لا يبقلك وي والله ويوي شيخ كجر ليرنا شيخ أم الماس والله كفي تالي بشيخ لاي يبقلك ويوي وويشيك كجر لير نشيخ أم الماء والله كفي طالب شيخ لاي بكر ويوي ووالله Seex amul ma wallaay xarit kay taxawal tey ma wax la kuy Seex wallaay xarit kay taxawal tey ma wax la kuy Seex wallaay ku fi taalibe Seex laay bégal ci way wi wallaay way wi Seex ko jaar leer na Seex amul ma wallaay yéen ci sama génti gi naxuma ndax te maa ngi way Seex walla billaay ca la ma del naan ma kaay nga way Seex walla sama cofel naxuma ndax te loolu moo wóor sax ci jog di ko way ndax nga am ca xar baax lépp Chérif ay mbiram leer na man dama yéem keneen ku dul leer na Cheikh dala yéem mu wallaahi yàlla ko jox li am dellu def ko soppeem mu wallaahi yeneen ba jox ko am naan yaay sama doom mu wallaahi bu leen gam gam le leer na Cheikh amul maas wallaahi tekkale tamit bañ naa ndax te kii du seen maas wallaahi salaatul faatiha bi caabi arjana wóor wallaahi wér di wi kii ku nga say maas wallaay yomal qiyaam bu ñu dekkee nga xam ne doo ñoom wallaay di sama wax ji ne kon dalay gaañ wallaay tey nga def li ma wax ndax nga ca xar baax laazima suba ak ngoon yow te ci tayel wasi fa suba ak ngoon yow te bul ci tayel yonent bi day teew Cheikh Tidiane dafay teew Aboubacar Omar Ousmane Ali dañuy teew kay ma wax la fi tey ñii fi Cheikh defal mbaax walla bul soxor bul iñaan bul ca waxalu lay gaañ njabootu Cheikh Tidiane bul ca waxalu lay gaañ ku ci mën a doon it leen te maam Maodo Malick bul ca waxalu lay gaañ njabootu maam Maodo bul ca waxalu lay gaañ Cerno Seydu lu taal bul ca waxalu lay gaañu walla aaji muntaqa ndaw bul ca waxalu lay gaañu walla seexal lislaam bay ñas bul ca waxalu lay gaañu mam aji abdulaay ñas bul ca waxalu lay gaañu mam amari ndaak ca cene ba bul ca waxalu lay gaañu walla taalibe yi déglu xam nga yéena moom lii li ma gis ci jamono leer na man dama yéem eh, njabootu Cheikh Tidiane bu ñu di di xiiroo eh, di xiiroo ka ngaayo xam nga li waarut wallaay nanu ànd te booloo jàppandoo di way Seex di ko bàkk te di ko màggal ndax moo ko yelloo wallaay di ko bàkk te di ko màggal ndax moo ko yelloo kay ma wax fi tey ñii fi Cheikh defal mbaax wallaahi ñëw leen ma wax leen tey ñii fi Cheikh defal mbaax wallaahi way bul soxor bul iñaan bul ca waxalu lay gaañ wallaahi laajal ma bàyyi modu lay kooku xam na kuy Cheikh wallaahi Cerno na kuy Cheikh kooku xam na kuy Cheikh wallaahi bàyyi dara ma ndow faan kooku xam na kuy seex walla laajal ma bàyyi njaase mbay kooku xam na kuy seex walla bàyyi njaase yi bàyyi nguuda mbay kooku xam na kuy seex walla ma bay Assane Diaw kooku xam kooku xam na kuy seex walla laajal Serigne ma bay Modou Leye kooku xam na kuy seex walla laajal ma bay Medoune Niang kooku xam na kuy seex walla Maxtaar Siise xamu na kuy Cheikh wallaay laajal ma Baay Saliou Hann kooku xamu na kuy Cheikh wallaay Oustaz Ndoye Diouf mi kooku xamu na kuy Cheikh wallaay laajal ma Baay Ousseynou Ndiaye kooku xamu na kuy Cheikh wallaay alxaaji Useynu jiite kooku xam na kuy seex wallaay ku koy bàyyi Seex Tijaan ku xam na kuy seex wallaay ku koy bàyyi Amad Lamin ku xam na kuy seex wallaay bàyyi Mansour jiite kooku xam na kuy seex walla laajal ma mam Khalifa Gaye du xam na kuy seex walla laajal ma mam Khalifa Gaye du xam na kuy seex walla laajal ustas Mansour Mboup du seex walla imam xam na kuy seex walla ma ñaan daal di dem ba biir faas wallaay billaay kon li ma ñaan daal di dem ba biir faas wallaay dem ziyaare ji cheikh naan ko maa la wayle wallaay dem ziyaare ji cheikh naan ko maa la wayle wallaay ñu dem ziyaare ji cheikh naan ko maa la wayle wallaay ci barke cheikh laay ñaan yàlla na way wi siw la wallaay barke Cheikh laay ñaan yàlla na way wi siiw lool walaay laay kon li ma ñaan yàlla na way wi siiw lool walaay ci barke nabil Mustafa yàlla na way wi siiw lool walaay kon demal li ma ñaan yàlla na way wi siiw lool amin ci barke nabil Mustafa yàlla na way wi siiw lool